salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génne seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee. lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale. waa ñun waa univers bio ku soxla sunu numéro nag da ngay def 77 160 93. 93 sama mbokk yi dëkk Touba te soxla woon produit mauvaise haleine bi numéro téléphone bi nag mooy 76 283 98 69 Touba Jannatul Maxwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni. tey jii nag ñu ñëwoon doon leen présenter lenn ci suñuy produit pour mauvaise haleine. traitement mauvaise haleine bi nag boo leen ko xoolee dafa yaatu ci gémmiñ gi ci put bi ci biir infection yi yooyu yëpp dafa nekk li xam te ni ay cause la lu mën a jur mauvaise haleine kon nag traitement bi yëpp lañ lay jox looy broso pour gémmiñ gi moo nekk ni buy dindi lépp li nga xam te day indi xetu gémmiñ comme ni ma ko waxee dafa yaatu am na nga xam te ci bi la ñenn ñi dañu am infection ñeenti sachet yi moo koy faj ci biir bi ay garab la yu ñu naan poudre la bio naturel ak li nga xamante ni moom lay àndal ndax nee naa leen mauvaise haleine dem na ba ci ay ngelaw seytaane seen biir day ballonné di rëy te loolu yëpp rek day doy waar xet yooyu day ba di feeñ ci sax ci bakkanu doomu aadama ni ki di kon garab yoy kep ko ko soxla mën nga ñew fi ci Dakar sen boutique univers bio nekk Géejawaay arrêt de Balès ker Serigne Lamine Bara Fall mën nga ñu wo ci numéro yi ñu 77 160 93 93 77 160 93 93 wala mën ngeen ñu wo ci numéro bi di Touba Janatu Mahwa ci wetu hôpitalu Fawzeni 76 283 98 69 76 283 98 69